xam ngeen ne mbas mi ci mu nekk sonal nañu torop torop torop bés bu nekk cas yi ñu ngi yokku tey jii dégg naa ne am nañ fukk ak ñeent nit yoo xam ne gaañu nañ ci mbas mi ah loolu nag pour ñu wàññi ko il faut que ñu li ñu naan mesure barrière mesure barrière mooy lan mooy sol sa masque takk leen seen masque yi bu ngeen di génn ci kër gi na ngeen takk masque moo tax ñu ne tey ville de Dakar comme que xale yi dañu war a def examen le 29 baccalauréat le 29 la BFM ñu war ko def le 8 ñu ne nañu jox inspecteur d'académie bi may nuyu madame l'inspectrice d'académie nañ leen jox 80 000 masques pour élèves yi nga xam ne ñiy def examen danañ leen jox masque li ci des ñu jox ko personnel bi ak école yi bu école di ubbi bu doyul aussi danañ dolliwaat ñu ne itam il faut ñu jox. sapeur pompier yi may nuyu bu baax euh, ki leen représenté fii maa ngi koy nuyu di nuyu général bi ñoom itam ñu ne li ñuy def liggéey bu am solo la ndax barki démb rek bi ma demee plage BCEAO ñu ngi leen di sant foofu ñu leen gërëm ndax bu ñu amee ñun ay surveillant de baignade yu nekk foofu sapeur pompier moo leen di jàppale boo amee ay noyade war a jox itam police nationale may nuyu commissaire bi nga xam ne moo ñëw représenté commissaire yàgg fii ah ñoom itam danañ leen jox ay masques ñoom danañ leen jox 20000 masques jox sapeur pompier yi 15000 masques loolu yépp pour mbas mi ñuy fagaru ndax kat fagaru moo gën faju te bu ñu solee masques yi wax dëgg yàlla law bi feebar bi di law xëy na dina wàññeeku bu baax a baax boole ci di raxas loxo yi ak di dàndante bu ñu bàyyee li ñuy dajale nit ñi muy ay xew muy leneen lépp luy xewi jàmm ak xewi euh, safaan wa ñu fexe ba vraiment nit ñi toog seen kër bañ di dox lu dul farata ñu toog seen kër yi respecté mesure barrière yi yaakaar naa ne jàngoro boobu dana dellu gannaaw li muy def ci réew mi nag métti na torop te fim mu nekk nag ci xale yi la gën a commencé di di daaneel xale yu baree baree baree bare xale yi am fukki at ak ñeent ak juróom ak juróom-benn ba ñaar fukki at fi mu nekk dañ doon wax ne bu njëkk feebar bi du laal xale yi ñi yore ay diabète ak ay hypertension ak ñi mag la gënoon di sonal waaye fi mu nekk xale yi sax da leen di sonal sonal boo xam ne il faut nag ñu jóg taxaw ñun ñëpp moo tax may lancé appel di di wax population yi mbas maa ngi fi mi ngi gën a yokk te fi mu nekk situation bi grave kon daal ngalla nañu góor góorgóorlu di takk masque takk masque moom am na ci solo bu am importance nañu takk masque yi respecté loolu ñu docteur yu sant mooy mesure barrière yooyu bu ñu ko respecté feebar bi dana dellu gannaaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu journaliste yi aussi. man la Khadijatou Diallo inspectrice d'académie de Dakar euh, dama ñëw fii tey ci ville de Dakar euh, ci hôtel de ville bi. fàtte naa ko wax sànq hôtel bi de dafa rafet man de boobu ba léegi maa ngi xoole rek dafa rafet a rafet maa ngi xoole maa ngi téen xam naa ne nag loolu waru leen koo wone sax ci télé yi ndax sànq ba léegi maa ngi téen di xool di sànni sama bët yi fu ne ndax rafet donc félicitations madame le maire pour la réfection de ce joyau qui fait partie de notre patrimoine national rafet na yàlla nekk seen muur ak seen jiglaay donc nee naa man depuis 2020 laa ñëw fii weer laa fi def ñu tëj école yi ndax feebar bi mbas bi ba ñu ubbee école yi mu nekk ci biir nawet ñu soxla lool ay jumtuwaay pour mën a xeex mbas mi man mën naa wax ne tey bu fekkee ne ñun de Dakar réussir nañ loolu yàlla ak madame le maire nii ak équipe ndax manqué wuñu dara dara dara lépp dañ ko am ba mu mat ba nga xam ne matal ministère de l'éducation li mu ma jox pour man ma war ko jox ci école yi benn lycée public benn collège public amu ci dara benn masque joxuma leen ko dama ko jox école privée yi nga xam ne dañoo bare ba jaaxal ma ci biir Ndakaaru léegi lycée public bi ak collège bi lépp madame le maire moo leen di jox ba mu doy ba mu des dina leen jox lavoir jox na leen savon liquide jox na leen gel jox na leen ay masque et à chaque fois daf koy renouveler xam nga mënoon na ko def benn yoon rek pare na ci waaye xoolal tey quatre-vingt mille masques la may jox nous on a un peu dix-sept mille candidats au baccalauréat lañ am euh, ci BFEM bi un peu moins de vingt mille léegi lii des xoolal lii des ci masque yi nga xam ne ñun ouverture ñun mën nañu tëdd nelaw ndax ba école ubbee du ñu am problème pour jox xale yi masque ñu mun a démarrer à temps loolu yëpp nag ci politique bi muy doxal ci affaire compétence transférée bi nga xam ne moom dafa xam lan la lan mooy compétence transférée des collectivités territoriales des municipalités te moom mu koy jëfee ko liggéey man de ba mu fi ñëwee ba léegi du ma ne bu leet bii mooy énième fois may ñëw ci ay cérémonie pour récupérer ay matériel te nag amul benn matériel boo xam ne pour xeex mbas bi la boo xam ne ñu dugaluñ ko ci école bi te te fu ñu ko dugalee rek moom loxo moo ci dugg ndax nee naa leen amul benn matériel bu ministère bu ma jox lycée public wala collège public yépp mairie de ville moom moom mooy jox donc madame le maire ñu ngi la ciy sant di la gërëm oo nom du ministre de l' éducation nationale Mamadou Talla ñu ngi lay sant di la gërëm yow ak sa équipe équipe bu dégoor bi boo xam ne déggal nañ la te loo santaane dinañ ko def ni mu gën a rafetee ak yow ni nga ko bëggee ñu ngi leen ci sant di gërëm mais joxu leen école bi rek da jox jox sapeur pompier jox police loolu man dama ne xel mu rafet la parce que ñoom ñoom ñooy nekk ñun bu ñuy nelaw ñoom police ñu ngi ci mbedd mi di ñu aar ñoom sapeur pompier ñu nga ca plage yi di ñu sauver di ñu sauver ci suñu kër yeeg yépp donc ñoom ñooy force de défense et de sécurité pour mettre en place l'ordre public pour maintenir l'ordre public ñooñu ngeen xalaat jox leen ay masques yi ndax toujours ñu ngi jànkoonteel ak population yi toujours ñu ngi ci biti exposé ngeen xalaat jox leen ay masque pour ñu mën a euh, aar seen bopp loolu dama ne lu rafet la yal na leen ko yàlla fay donc loolu laa doon wax madame le maire li ngeen mën ren yal na ngeen ko mën déwén ngeen mën lu ko ëpp incha allah jërë ngeen jëf. madame le maire de la Dakar moo ñu boole ñu ci ay institutions yoo xam ne ñu ngi fi pour may ñu ay masque wax naa sànq ni ci tubaab ni njëkkewul tey. maire de Dakar yàgg nañoo jàppal jàppalante ak ñun voilà yàgg nañu dimbali ci maintes occasion mais comme xam nañu li ñuy liggéey ñun ci mbirum Covid et même au-delà de mbirum Covid bi mu ko amee ba léegi lu ne def nañ ci euh, ci ci intervention am na sax ay pompiers yoo xam ni am nañ ci jàpp nañ ci Covid à cause de de l'intervention donc loolu lañu xam ñoom boole ñu ci. masque yi ñuy distribuer am na ñeneen ñu fi ne ñoo xam ni ñoom tamit il mérite certainement de la l'avoir mais nous particulièrement nous ci euh, ñu ñi nga xamante ni chaque fois dañuy dem ci euh, intervention yi di jël ñu am Covid seen kër di jël ñoo xam ne dañoo faatu ci Covid donc bu ñu joxee masque ça veut dire que dañuy day participer mairie Dakar day participer ci suñu protection bu ñuy aar nag mairie Dakar bu ñuy aar ça veut dire mi ngi aar population bi loolu moo moo tax euh, mënuñu ko bañ a remercier te wax ni du du guléet yàgg nañu remercier ñoom yàgg nañu dimbali yàgg nañu participer di ñu appuyer ci domaine bu ne donc aujourd'hui bu ñu woowee tey di ñu jox masque 15000 masques c'est pas c'est important pour nu maanaam bari na ci ñun ñoo ngi lay remercier su ma demee dinaa wax euh, général bi vraiment porté wu mbir mi ak ni nga xamante ni noonu nga ñu jàppe voilà ñoo ngi remercier ñëpp. merci beaucoup Palamène. de la sant suñu taxawaay fii dañ fi ñëw pour euh, loo bi nga jox police. 25 000 masques euh, ñu bokk ci séddale bi nga séddale ci institution yi wàllu académie de Dakar ci wàllu njàngale bi ak wàllu sapeur pompier suñu doomu ndey yi donc loolu ñu tax a ñëw ñu yónni ñu ñun commissaire Amadou Ba laa man au nom du directeur national de la police mooy ki nga xam ne mooy inspecteur général Bokar Yàgg pour ñu ñëw jël si loo boobu loo bi nag euh, macha allah. baax na trop di nga ñu tax ñu dimbali suñu bopp dimbali suñu njaboot dimbali tamit askan wi nga xam ne jamono yi xam nga autorité bi jël na ci ay disposition yoo xam ni non seulement dañoo war a aaye léegi ku solul masque yoon yoon góorlu ci yow mais aussi en même temps permettre nga ñu bu loolu amee ñu mën a dimbali nit ki mu am masque c'est ça c'est ce que nous retenons loolu la ñuy jàpp ci geste bi non seulement dinañ protéger wu ñu et bu ñu gisee ko amul bu ñu la yeddee ba noppi dinañ la jox masque nga dem et également dans les dans nos commissariats nit day ñëw doo masque donc lii mbir la moo xam ne am na solo lool lool te di ñaan nag muy am muy am des fois lu bari force de l'ordre de sécurité yëpp euh, yeneen naataangoo yëpp dina gën a baax vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant police mu ngi lay gërëm di la sant di la jaajëfal baax a baax Merci beaucoup. Merci. Voilà. Voilà, merci beaucoup.